tey Macron ci boppam information bi ñu joxe moom mooy ko daf ko daal di dàq. <laughs> non Zeyna. ah j'ai envie de rigoler parce que euh, ku ku def faute kay moom la ñu dàq xanaa. waaw si yoon. te yaakaar naa ni poste boobu président mu koy jël aussi daf ko neexoon mu jël ko. Euh, Macron am ci moom confiance te yaakaar naa diggante président ak Macron. Mhm. ni mu ko tàggee buñ ñu demee soixante dix sommet bi passé rek tout tout récemment aux États-Unis mhm. gis nañ ñu Macron tagué président Macky Sall ak qu'est-ce qui a changé entre temps ak lu ko waxal non dara changé wul ñuy wax né dañu dakk Macky Sall waxuñ deug ci ay manipulation lañ nekk xam nga wa wa ñoñu. Wa génération nokos Ñoñu dañu mëna sos, dañu mëna manipuler. Ah bon. Ñoñu nak dañ leen di bay ci seen yef parce que yoyu seen momel la loolu lañ xam waaye yow gis nga bataaxal bi président moom la présenté une démi sa démission au, au, président Macron mhm. pour le poste de a euh, parce que xam na il est tête de liste et comme tête de liste là ce poste ne rime pas avec ses responsabilités parce que day bàyyi poste ba ñëw def ci campagne su naree bàyyi poste ba ñëw def ci campagne kooku abandon de poste lañ koy wax te loolu en matière administrative dafa xam ne dafa am éthique ak morale am na loo éthique une ko morale une ko déontologie lolo tax nak président Macky Sall gis né té c'est pas nouveau président Macky Sall fi la ñew élection présidentielle dikoy waj waaj gars di koy sosal lu né dafa bëgg président dafa bëgg candidat mu ñew bett mhm. ñep ne leen je ne suis candidat en rien donc li bu mu ken président Macky Sall c'est un patriote c'est une personne bo il a le code d'honneur il a le sens de l'éthique et c'est un homme de vertu lolo tax nak bon naturellement <laughs> ku on nak def li président Macky Sall capable def sa xol moy bu di rongé wu rek nga koy sosal di wax lo xamantene amul mais li ci am solo moy ne dëgg bi moy ne président Macky Sall il a présenté sa démission à au président Macron Macron nangul koko mom mu ñew wacc pour wacc pour battre campagne pour jàppale Sénégalais nga xamné ils sont dans la catastrophe catastrophe économique euh, tay ñëpp a sonn bi yëpp paralysé le pays est en perfusion xaw nak nak absence de glucose la ma absence absence euh, de calcium là absence de potassium la mais Sénégal Sénégal dafay daal di contredire li nga xamante ne moom ci boppam moo ko waxoon daal di xam le ni que une fois mu daal di bàyyi fii euh, ki nga xam ne moo ko wuutu muy président Bassirou Diomaye Faye dafay daal di dem bàyyi ko mu gouverner ñu gis ni sept mois plus tard ñu ngi xaar di lamlaamee le retour de Macky Sall est-ce que kon xel nangu na loolu euh, est-ce que du indi benn trouble euh, ordre trouble public envers Sénégal envers yéen ñi nga xamante ne yéen a fi nekkal Macky Sall est-ce que teelul le retour de Macky Sall est-ce que teelut non xam nga Macky Sall c'est un sénégalais. te nak néna na ñemewul teg fi tankam parce que dañ koy topé au trahison ñen ñi suñu ay confrères sur des plateaux wax nañ ko daal di xam le ni que ki di président Macky Sall waruñu ko won bay sa mu rëcc alors que li ñu jaaxal moy que Macky avion présidentiel moko ko yóbbu. xam nga dama mel dafa mel ni gis nga ñi wax ay haute trahison da nga xam dañoo xam luy euh, la linguistique luy la sémantique du mot haute. trahison koo xamante ne dafa démissionné wax ne du ma candidat ci élection présidentielle troisième mandat mhm. amoon droit def ko loi bi constitution Sénégal permettre woon ko moom mu def mhm. deuxième quinquennat mu ne man pare naa bàyyi naa lépp li nga xam ne moom mooy samay ambition par rapport à la politique man bàyyi naa du ma nekkati candidat ci élection présidentielle mhm. mu def loolu mu créer mu indi loi amnistie amnistie ya gën ay prisonniers Yo xamantene dañ dañ leen Japon ñu gën leen pour pacifier l'espace politique ñu joggé fofu nonu mu élec mu créer def ay élections yu transparente mm-hmm. Yo xamantene ñom ñi nga xamné tay tey ñoo mosuñoo xalaat ne dañ nekk président de la république Tay affaire bi def leen bête. Mm-hmm. ñun ñu ñëw accéder à la magistrature suprême ñooñu ñooñu tay. suñu waxee ne président Macky Sall def na haute trahison xanaa kon ñom lañu wara ñom ñi nga xamné ñom ñu doon wax né président Macky Sall dañ ko wara a traité comme Samuel Doe ñom ñu fi doon woote ay ay ay ay ay appel à à l'insurrection gëni leen cokki fin mortal combat xana kay ñooñu ñooñu lañu wax né ñooñu ñooñu wara attaquer wala ñooñu wara a ñooñu lañ war a jugé mm-hmm. comme haute trahison donc tey képp kuy wax haute trahison da nga xam luñ luy la sémantique et la quintessence du mot haute trahison mhm. loolu nag wax dëgg neex yàlla c'est un débat de bas étage c'est un débat de caniveau boo xamante ne jarul sax ma nekk fi di ci attardé wu. donc mën nañ xaar le retour de Macky Sall ndax moom moo nekk tête de liste li nga xamante effectivement moom mooy seen euh, liste bi.

yàlla teguy Sonko de. Mm. yalla a la choisir teg ko a choisir Sonko ci kanamam Sonko yalla teggu ko fi. Mm. ga nak yalla ko muy comme nous ma nous may dundu comme nous la ngay dundu mm. ñun ñep yalla ñu fi ko gis nga am une mission mission. précise def ki nga la la mm-hmm. du pouvoir le président de la république mom à partir de ses pouvoirs mo am droit nommer ku ko neex wala démettre ku ko neex mu jël Ousmane Sonko tank tànk ko def ko comme premier ministre loolu dañu koy nangu. c'est vrai loolu ñoom ñaar la mais Kanta ku fi yalla tek mom Ousmane Sonko mais yéen ba leen di attaquer sax vous parlez pas de Diomaye Sonko ngeen di attaquer non xam nga aussi kan moy taxer les opposants de poltron est-ce que Diomaye wax na fi wax ne ñun ay poltron la ñun opposants est-ce que Diomaye ta def na conférence de presse tak wax ne ñu fi gëné dañoo fen de sénégalais yi wax wax ju ñaaw jëmale ko ci président Macky Sall mhm. après menacer né ku wax ci ku contester yi ma wax da nga gis mhm. hein yoy yëpp nak su amé ñu wax ko ñun li ñu war moy lan moy né nit ki su la attaquer té ñam ñemoo ko tontu yow tapet nga muqat nga tey lolu képp kuy def politique dañ ko wara bañ nous on des responsables nous sommes honnêtes mhm. li nga xamné mom moy suñ devoir de militant ak devoir d'opposant nous allons le remplir avec toute la plénitude les lu qui ci lu ci mëna nek assurer parce que ñun lu ñu war moy ñoon ñun duñ duñ Pastef imité wuñ len mimétisme calculer wu nous ñu opposition parce que nous une saga, xaste une socialite nit ay ay cadre ngay wax falsifier ay chiffres li ko gëna ci hmm. et eh, cadre cadre man man cadre administration bobu nonu hmm. dama samay samay clic samay claque yep ko dem man je comprends peut-être lu tax parce que nan yaakaar naa ne ku waxoon français franc CFA. dafa doon waaj a créer monnaie locale. changer la monnaie. ci mo man le débat du franc CFA fan la toll. débat franc projet français non bàyyi leen ma projet projet bu amul nga ma projet ban projet. projet amul aujourd'hui on est le 7 non ou bien le 6. ah bon je ne sais pas Tu es le 7. waaw c'est normalement c'était c'était tey la ñu joxe woon dernier rendez-vous. yow yow mais yow non est-ce que yow da ngay déglu. ñii duñ la promettre dara nga gëm ko yow. ah ñooñu jiite di. ñoom ñoom promesse moo tax ñu fal leen septembre. ils nous ont promis beaucoup de choses moo tax ñu fal leen. ñoom ñoom ñoo jaay projet. dès le premier tour non xam dégg nga dañoo wax ne. Ah. projet bi dafa def livre solution ñu ne su ñu ma jox Sénégal am naa solution. oui. wax joge foofu ñëw ne projet projet bi nañ leen jaral même su ma nekkul sax su ma fi nekkul sax na ngeen téye projet bi. nan na jaral lu ne ci protéger le projet bi affaire bi projet la affaire bi di discours anti système mais ku doon def discours anti système ñu gis la xey gis la nga avons ak ay la nga ak Sy ñu la la Aminata Touré que la tous les membres du système ñoo xamantene sax ils ont occupé des postes de responsabilité pendant au minimum deux ans ni cinq ans and hmm. ak président Macky sous son magistère ñu dem bëgg wax né yow la carnet d'adresse de Sweet Beauté ñun yoruñ ko ñu bëna Bokk Yaakaar yoruñ ko nous ñek sa kanam nekk ak ngeen di projet bobu nga jaay ko Sénégalais yi nga falu ñu xaar projet ngeen def conseil des ministres ne 3 troisième trimestre lay pare ngeen joggé fofu nga def conférence de nga def manifestation fait grand théâtre nga ne septembre projet bi dina pare nga joggé fofu né non quand même non quand même quand même aussi nañu noppal ci projet. mais mais mais mais mais mais on peut pas exclure le projet PASTEF parce que quoi qu'on puisse dire mon moo leen. man ma le projet PASTEF c'est du pouvoir. pour le projet PASTEF c'est des emprisonnements. des emprisonnements. de l'intimidation de l'acharnement. de l'acharnement man lii laa gis ne lii mooy projet bi. kese lii laa ci gis. li ma ñu réaliser Le ma gisagum ñu réaliser Moi, tej nañ ay nit nañ ay nit. intimider nañ ay nit yóbbu nañ ay nit kaso gaa yi gaa yi rébellé wu ñu daw de teg ci nit toog fii wax ne dictature dañ koy créer muy Cheikh Omar Diagne. vidéo baa ngi fii dictature. wax ko benn waxee ko ci benn seen télévision ñu bàyyi ko mu attaqué suñuy tarixa attaque kër suñu kilifa diine attaqué Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di wax ci ay bindam. kenn waxu ci dara ñu bàyyi ko ma militaire yi xam nga gendarme yi di koy di koy toojal muy dem pale di xes ak di xëy di gont ñu kooku di contester ay écriture ak ay tarixa yi jàmbur kooku jàppuñ ko tëj ko kaso nit Bougane Gueye Dany contester ay chiffres am ñu ne dañ koy jàpp. on est dans quelle dina ñëw ci chiffre bi mais ñu tëj chapitre bi kon yéen affaire euh, est-ce que nekkoo leen di nax seen bopp. di xaar Macky Sall pour mu teg tànkam Sénégal parce que Macky Sall il est menacé au Sénégal. Macky y' a y' a y' a combien de plateau les Moustapha Diop. bu Walf nee na Macky Sall warutoon génn. Euh, nee na Macky Sall bu ñëwee dañ ko war a jàpp parce que il nous doit. mais kooku mosul bëgg Macky Sall kooku mosul bëgg Macky Sall lu ñaaw rek la xam ci Macky lay wax ci Macky Sall. man am na ñoo xamante ne seen débat sax du ma ko déglu honnêtement parler man am na ñoo xamante ne leur débat seen i wax man je les je je les prends comme un chien qui crie. Hmm. man du ma déglu seen i wax amna ñoo xamante ne barke Cheikh Al Khadim xoolal am na am na am na am am naa si sama bopp recette boo xamante ne ak samay cordon vocaux yoo xamante ne jaraluma may yàq samay tympan di leen di déglu non du ma ko def j'économise mon énergie. d'accord parce que l'énergie vitale est trop chère. donc euh, président Macky Sall. ñii ma ne la dama damay def wax képp kuy yaakaar ne nguur jëy na la. Hmm. am nga station am nga pouvoir. yor nga yenn responsabilité yi ba bugg a xoxotal président Macky Sall Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul xam na lépp loo ci bëgg rek lépp lépp luñ ci baax ñun dañ koy ŋeer man moom calculer ma ay ministre calculer ma ay directeur général man ah, ñu sama yoon nekku ci ñooñu. yow Macky rek nga tëj nit ñoom sama yoon nekku ci ñoom ñu ngi may dégg man faalewu ma leen calculer ma ministre calculer ma directeur général calculer ma kenn man Macky Sall laa calculer ku ko laal laal ma ku ko ku ko wax wax ju ñaaw à la minute danga may dégg. mais Samba quand on dit comme suñu suñu suñu internet bi poser question bi euh, Sara tax maa ngi lay nuyu bu baax baax di la Sénégal nam nañ la xawma fo nek nak mais nam nañ la bu baax a baax honorable tay yeen bo len di campagne tay ci lan ngeen mëna campagne ba convaincre sénégalais ñu jox leen majorité biir assemblée nationale euh, sachant que sénégalais dañ ne doyal nañ ci yeen ba tax ils ont sanctionné Amadou Ba dès le premier tour. d'accord Sénégal dañ ñoo sanctionné. xam nga tax ñu sanctionné. immigration sin def doon jaba jonge mhm immigration clandestine moo fi nekkoon ñoom ñi nek ci nguur gi tay doon wax né jeunes yi dañoo désespéré dañoo amatu ci ñun confiance. Mhm. looloo tax ñuy dem. jeunes yoyu ñu confiance pendant 12 ans ñun def nañ pendant 12 ans dernière année suñ dernière année de règne les jeunes yoyu commencé def immigration clandestine d'une manière fulgurante D'accord. Nous, ñu ne ñun dañoo lajj mané ne waaw d'accord. accord nañ mhm. Sénégal sanctionné ñu mais immigration clandestine la gën a garaaw. géej gi lu muy lekk géej gi lu muy lekk ci ay nit. la gën a exponentielle tey la gën a un désastre au niveau des familles amuñ ci solution xam nga lu ci am mhm. yole. état nag su demee avec. mais yoole état bu fekkee bu fekkee ça va sauver des vies c'est non état ak lu am. yeb acceptable yëpp ci artères en matière de supervision état lu am ay lepp ci walum sécurité ci warum sécurité sécurité ci walum information ci wàllum renseignement nga xamné tay li nga li nga agné sa cœur sax état waro na man am capacité xam yow exactement li nga am ak satellite yi fuñ ñu tay système de géolocalisation fuñ mu tay nga xamné fu nit nekk. war nga mën a xam exactement fan fan la nekk fan la toll lu muy def ak lu mu am ak lu muy bëgg def avec les écoutes téléphoniques hmm. loolu soo ko amee yooyu yëpp hmm. mënoo ko maîtriser ba di wax ne na ngeen di yoole loolu moom c'est un signe d'échec loolu moom signe échec la moom. te loolu am na beneen fee day indi jaxase ay doomi aadama parce que tey man. Hmm. fekkee ne man maa ngi waaj nga nekk sama xarit. man la ah man de am naa samay 3 millions. wala am na sama 400000 dama bëgg a dem nga yool nga ma xam xëy yow kessa la ko waxal. Mhm. ma jékki-jékki ñu woo ma jàpp ma dina xam ne yaa ko wax. yow à vie sama diggante yow day yàqu. Hmm. kon du solution yoole bi du solution. non du solution. d'accord état. Hmm. am na tous les tout son dispositif le dispositif nécessaire pour mën a parer à ça te tey immigration clandestine baa ngi foofu noonu accident yi hmm. ñoom ñoo doon wax ne Mansour Faye dafa mënu

les 54 yi leen votel ci ci ci naxe yooyu lañ leen. waaw naxe yooyu yéen ngeen ay naxe la. naxe yooyu nag. Ah, fu mu nekk nii déglu ma naxe yooyu noonu nag. moo tax sénégalais yi ñoo seen bopp ñoom ñu am désespoir les sénégalais sont désespérés les sénégalais sont déboussolés les sénégalais n'ont plus confiance. Hmm. à un lendemain à un lendemain meilleur parce qu'en réalité liñ den luñ leen doon jaay FMI su ñëwee table rasa français fa tabla rasa. France dégage, tabla rasa. Auchan, France... Tous ces, toutes ces promesses-là, promesses mirobolantes, chimériques et frivoles, ils n'ont pas dit qu'ils promettent aux Sénégalais. Man, man, man, j'ai le cœur serré. Man, demain, man, fait je suis man, membre passif là je Sans moi, tout, demain, je Non, sérieusement, parce que man, ça m'a immunité, ça m'a ngor me permettre parce que man dama ko wax ko élection locale di ñëw man je suis candidat à la commune de Biscuiterie et je serai candidat mais ce qui est faisable avec la leen di mhm. tout ce qui est faisable dans la mesure du possible et dans la mesure de mes moyens mais, mais, je mais, le ferai mais je il faut, il faut faire rêver les il faut faire rêver non Sénégalais. ma réel politique gis nga vaar ku ko moytuwul da nga dee say doom nekk fii say say set nekk fii da lay manquer respect c'est important wala di koy tooñee say doom say set Yo, c'est vrai yooyu. buga buga yéeg. mag nga naan potit saay bu ndox amee gàcce dina la rey. d'accord mooy buga yéeg ci nguur. Mm-hmm. nga ne tous les moy sont bons. Mm-hmm. tous les la fourberie la tortuosité la la manipulation yooyu yëpp nga ko utiliser à tes fins pour des fins exclusivement ak pour accéder au pouvoir yoy say bok say bok accéder ba paré fait yoy nonou moy lu wax effet boomerang un rétrocontrôle négatif effet boomerang lay donne yi nga doon def dikoy diaboliser dikoy koy nit ñi yoy nak moy taxañu ñew ñëw daanu sa ko do tax tubaab nee na le malheur que l'on choisit la tête de quelqu'un préfère elle-même choisir sa propre victime yene a nekk ci ciy fu nek nekk ñu doon yene sénégalais yépp luñ doon lu ñu doon yéene hmm. suñ nguur hmm. mu ngi d'accord. accident yi dañul immigration clandestine dañul. kilo clémentine mu ngi ci deux mille deux mille clémentine de la ma trois cent barke Cheikh Ahmadou ko non yoy len ko honorable li man ma tay hein? man ma wacc damay damay parce que lu wax. Hein? man ko man <laughs> mu ne ma Clémentine kil Clémentine deux trois cent cinquante ma ne ko saawaay déglu ma déglu ma mhm. bàyyil caaxaan benn Clémentine bu ndabi trois cent cinquante yow xam nga li ngay wax foo ko teg mu ne ma Clémentine dafa seer grand soo mënee jënd nga jënd soo mënu dem sa mbokk yi la sax soo mën a jënd nga soo mënu jënd bu ma tooñ <laughs> ma ne ko ah bon ma ne ma ne ko ah, ma ne ko baax la d'accord donc tey pour woon la ne xale ku am doom sa doom di di jooy Clémentine yow doo ko a jënd Clémentine parce que dafa il est extrêmement trop cher ceeb tey Quel qui vient de ceeb. D'accord. si nous C'est une question